waaye day def ñaari séminaire de formation wala séminaire boo xam ne bi day discuter ci question spécifique yoo xam ne day nekk question d'actualité ñu jàpp ne nag fi mu toll ci séminaire bi waxtaane lu dul monnaie unique en tant que parlementaire defe naa bu ko defee rek wàcc nañu sunu ànd moo tax bi ma gisee président Issoufou ci Niger ci octobre passé mu ni ma dafa ma doon suggérer question monnaie unique ñun parlementaires yi ñu jël koy CEDEAO waxtaan ci def ci ay recommandation ndax lu nu waxtaanee day demaat ci parlement nationaux yi moo tax ñu inscrit ko à l'ordre du jour ñëw Dakar ginnaaw bi ñu choisir salle Cap-Vert waroon ko fa defee mais ñu ami gàllankoor ma ni leen mën na maa fexe ba réussir organisation bi à Dakar naa ko fi def def giñ ko def yaakaar naa ne liñ ci bëggoon am nañ ko. ndax fexe nañu ba institution yi nationale yi nekk fii muy gouvernement ak assemblée nationale ak peuple bi adhéré ci loolu ñëw fekke li ñuy waxtaan waxtaane experts yi ñëw nañu député yi ñëw nañu malgré diggante bu xat ndax élection lañ jóge Sénégal coow doon nañ ko séenu mais dama jël risque bi ni man dama koy organiser Sénégal Nigéria it jóge ay élection Guinée Bissau jëm ci ay élections Nigéria élections yi jeexagul ndax la neuf la ñuy élire gouverneurs yi boo gisee ñi ñëw a néew dañu ñëw dem ndax ñoom ñi ngi ci ay élections processus bu jeexul waaye teewul ñi ëpp à part ñoom ak Guinée Bissau ci député yi ñëw nañu waxtaan nañu déglu nañu experts yi def nañuy recommandation recommandation yooyu plénière bi dana ko valider daañu ko yónnee ñi ngi ko war a yónnee. loolu mooy sens bi nga xam ne moom la ñuy jox ndaje bi ñuy sant gouvernement bi assemblée nationale président Moustapha Niass ak député yëpp mais di sant député yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañu ak experts yi ak journalistes yi xam ne bu ñu réussir li ñu réussir kenn ku ci ne def nga ci li nga ci war a def kon sant yàlla la ci ndaje mi gërëm peuple sénégalais ci seen maturité élection bi ñu jógee li muy metti metti kalm rek a am kenn reyantewul kenn xeexul yëguma kenn koo xam ne dee na wala ku ñu kidnappé kon loolu njàmbaaruk Sénégal la kenn def ko ñun sénégalais yi ñoo xam ne wote dootuñu jaral reyu sunu bopp wala reylu sunuy doom dañuy wote ku gañe nekkub sénégalais yor bu élection ñëwee Sénégal continue kon sant nanu yàlla bu baax ci ndaje mi session bi nga xam ne bii ubbi nañ ko léegi it mooy session extraordinaire bu jëkk bi loolu it liñ fi war a waxtaani weesuwul programme bi nga xam ne moom lañ war a doxal ci at mi ak adopté fi yi nga xam ne yi jàlloon na ci gannaaw muy réunion délocalisée yoo xam ne yi war nañoo sanctionné par approbation lañ fi wax ndax lu nu mën a wax feneen te ñëwul ci plénière bi mbooloo mépp toog ñu décider du wax yoo xam ne mënees na cee tënku parlement bi daal ci li muy tënku mooy lu jóge bureau conférence ak lu mën a di doon ñu indi ko ci biir mbooloo mi ku bëgg ni waaw ku bañ ni déedéet bu ñu paree majorité bi li mu dogal ñu jàllale ko kon looloo tax ñu nekk fii xam ne danañ fi nekk lu jege fukki fan yoo xam ne député yi nga xam ne CEDEAO ñoo fi waxtaan ak experts yi pour xalaat yoo xam ne jàpp nañ ne luy jëmale kanam askanu Afrique de l'Ouest kon loolu daal mooy waxtaan wi amul leneen lu luñ fi doon waxtaan yi